laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah xalaat wa barakaatuhu aleykum moom sunna la ci lislaam nee na nag fay nuyoo moom farata la moom nee kon moom neexaluñ ci kenn kon nag yéen murid sëriñ bi nee na mi ngi leen di ci turu dari Abibu Mbàkke mum Cheikh mamadou Fadal mourid bi nga xam mo moo ngi yeen yéen a bokk ak bëgg nee bu nee Tuubaa kanam muy dox ba néega ni ginnaaw sunu borom mi nga xam ne moo bindoon Tuubaa moy moy al moo moy al almusafa bu nee xalilullahi ibrahima bu nee habibullahi nag mooy almustafa ji nag waaye nag ki bind lim bind mustafa ci gënal yow nag bu la neexee nga xool ku la gënal mustafa yow nee na kon abi habibullahi mooy soppe bi yàlla bi nena kon mi ngi leen di digal lii muy wax ak yéen digal la waaye nag ki mu koy digal mooy ki mu war a digal moom mooy ki ñu war a digal ñun moom mii di ni kër gi nee na soppeeb yàlla bii mi ngi ñaan ci liggéey bii ñuy liggéey na ngeen ñaan ci liggéey bii ngeen di liggéey di ko liggéeyal Serigne Touba ci yéen njabootu Cheikh Ibrahima Fall gi sëñ Abibu Mbàkke moom Cheikh Mouhamadul Fadal yàlla na gën a yàgg ci àddina yàlla na gën a wér manam gi it yàlla na sax dàkk rek lii mu ñu téyal noonu murit yi nga xam ne murit bu ne ameel nga ko ak cant boo dajeeg sëñ Abibu rek boo ko nuyoo danga naan ko jërëjëfati Mbàkke ci lii nga ma téyal te ma waroon koo téye nee na loolu nag mooy liggéey bii nga xam ne mooy Touba ca kanam nee na bërki démb rek bi leen wooyee ci njëmbat li bi ngeen taxawee janoog daaba yooyu yi nga xam ne yéen seen jëf la nee na as goro nag sëñ Abibu Mbàkke nee na bu bëggee gore lan nekk da cay nga xam ne bakkan ba la ca gar nee na yéen waa kër sëñ Mourou Minta Fall sëñ Ibrahim Fall Falilu nee na sëñ sëñ nee na bu nee Touba ca kanam nee na yéen yéen a ca man nee na ñu woola nag yow nga ne Fall tey wuyoo Fall sëñ Mourou te nag wenn wetu dee ba nga dagg daray Touba nee na loolu de moom gàcce la murid nee na waaw loolu daal góor ñi jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi nee na nag dañ fasaat jom kenn ku ne weer ba weer wa dee dëkk bii nga xam ne mooy sa kër gi gënal yàlla ci kër yi te moo gën ci nunit muy Touba di këru texe gii nee nga def sa kër bopp ga bis bu ne hmm. ab junni hmm. fere ko ca kër ga hmm. nee na këru jàmbur ga nga nekk sax bis bu ne nga fere fa ab junni ndax nee na amul kenn genn kenn koo xam ne kër ga nga nekk yaa ko moom kërug doom yàlla wala muy kërug jarbaat ya wala muy kërug sët ya wala ka ko lislaam doonu loo waaye nag kër sëriñ bi nga xam ne li ci nekk lépp nun murit yi noo ko fi def nee na loolu mooy sunu kër nee na kër sëriñ bi mooy sunu kër nun waaye nag kër yi ñu dëkkee doom yi lañ koy defaral de ku defar nag këru jàmbur bàyyi sa kër nee na am na nu ko sëriñ bi misaale nee am na nu ko sëñ Musaa Ka nee na loolu laay wax sëñ Abibulaay Mbàkke sëñ Musaa Ka dane wacc sa tool muy booy ngay ngay bay la jàmbur danaan danaan la demal di nal na di nal na di daw di daw ba njàmbur di daw di nal na demi liggéey ba njàmbur du tax a am dugub sàkkaa gerte kere bisu texe ba peese ba keroog bisu peese ba su ma mokkalee béy doo nee na bu ngeen mokkalee béy woowu ku noppi na ko waxaat. nee mu bëgg nag. yéen itam naka jekk. Touba ci kanam. kenn mënu leen ci. waaye nag ñun ñëpp nan aw turu neex la waye nak lo xamne mbolo mi bu ndaje nga deg serigne bi nan jere ngeen jeufati nga gis wa jo xamne nak day siggi fekk nak bobu mom da waroon seug mom ndax la tax ñuy wax jere jeuf mom du ca dara moom waa joojee moom doonu ca doone li wun ko ca waye nak na ñepp di xolé mom lay xolé waye nak du sa ji ay beutam mom te sàllaaw moom ku war a la moom warut a xool nee dem nag looloo nga fa koo xam ne ba nee doonu ca dara moom ña doon jëfal ña doon jëfal la sëriñ bi di waxal moo ne moom ku dem de man seex ñi am ci rek da man man defuma fa dara bu sëñ ah, bi nee na bu ñu xëyee léegi. nee na balewul ma ma diw ak diw. ma diw ak diw ma si lii moo ko indi si ñabi bu taalibi sëñ Fallou Mbacke bi. gaa yi njureelam ga nee na moo toppandoo Baye Fall yi nee na moo indi xéewal yii nee na waaye mi ñaan sunu borom noo ngi ñaan sunu borom nun murid yi jëwrin jii di sëñ bi bu Mbacke dundam gi yàlla ko sunu borom dolli wéram gi yàlla ko sama borom dolli wërsëgam wi ak jàmm ji ak njub yàlla lépp dolli ko loolu laa nee na mi ñaan suñu borom noonu koy ñaan suñu borom loolu ñoo koy ñaan sunu borom. loolu waaw ñoom ñëpp jënd ko nee na loolu la bëgg nee na ñu sarax ko ci nee na na doon murit Serigne Touba nee na lennam du génn Serigne Touba fennam it du génn Serigne Touba nee na na Serigne ci Serigne bi bëgg ñaanal ko

waaw waaw sëñ bi nee na ngeen ne ko li nga bëgg yàlla nga ko am. yàlla nga ko am. laa ilaaha illallah. laa ilaaha illallah.